Amadou Moustapha Gaye maa ngi lay nuyu. Euh, madame Moreau maa ngi lay Amadou Moustapha Gaye nga nekk président association euh, des victimes du net naka nga gisee déjà le fait que ñu bloqué euh, blocage bu yàgg réseau social bi di TikTok fii ci Sénégal. waaw merci madame Moreau ci invitation bi. blocage réseau social TikTok moi je crois que en principe compte di li affaire yi di Euh, état bi waroon na mën a jël ay mesures parce que Sénégal bu dara xewee boo ci waxee ñu ni waroo cee wax boo ci waxul ñu ni pourquoi waxuloo ci alors que ñëpp ñu ngi xool di gis ak seen bët ni ko réseau social bu ma ne TikTok bien que am na njëriñ parce que am na yoo am important yu si jàll yoo xam ne mën na jëriñ nit ñi mais li ci ëpp dafa yàq te loolu nag je crois que ci nit ñi la parce que nit ñi da waroon éduquer à gérer les réseaux sociaux mais réseau social bi dafa xëy suba rek daanu ci kaw Sénégalais yi xamul ñu koy gérer ce qui fait que aujourd'hui pour nga pour nga pour nga xam ne que mën na la amal njëriñ tey jii sur le économique comme ni nga ko waxee sànq mais sur le économique économique ñëppay jëriñoo TikTok ak réseaux sociaux yi ñëpp ñëpp ko jëriñoo mais li muy li muy yàq mooy ëpp li muy defar te ñëpp xam nañ ni que tey Sénégal dëkk bi dafa am problème ak ak les tey jii le premier problème que nous avons au niveau du Sénégal mooy les réseaux sociaux que ñu wax ko walla ñu bañ ko wax ku nekk tey jii potentiel victime nga ci réseaux sociaux yi euh, ce que gouvernement bi mesure bi mu jël pour xool affaire TikTok man d'accord naa ci léegi nag dama bëgg aussi ñu déggoo bu baax moi je ne suis pas pour la censure d'accord lu ma ci censure mais d'accord naa ci régulation réseaux sociaux yi dañ leen war a dañ leen war a réguler dañ leen war di modérer parce que dans les pays développés aujourd'hui ñëpp gis nañu xew France États-Unis ak yeneen réew ñoom ci seen bopp ñi ngi jël ay mesures pour ñu xool nan la ñuy mën a réguler ak modé modérer les réseaux sociaux <coughs> pardon pardon. oui. amoon naa ci ay temps ay euh, euh, la presse en ligne bi nekk Sénégal euh, ñu bëri di ma interpeller parce que dama defoon ay article pour dénoncer ce qui se passait dans les réseaux sociaux mën leen noo attendez man lii may def def moo ko pour parce que dama leen compte parce que yéen mënu leen am de des de de de des canaux aussi important que ay ay presse en ligne xëy suba teg ko rek bi canaux yëpp di permettre nit ñi ñu ñuy dugg ci biir di wax lu leen neex di saaga ku leen neex di diffamer ku leen neex te loolu y a pays yoo xam ne loolu mënu fa am y a des yoo xam ne bu duggee boo waxee loo warul wax à l'instant même am na modérateur qui est derrière qui regarde et qui l'enlève xam nga loolu xam nga loolu du censure bi régulation la foofu na ñun lañu ñu war a toll tey réseau social bu ma ni TikTok état du Sénégal war na ko mën a woo ni ko ñëwal nga ñu toog ñu wax ci sa réseau social bi parce que ñu ngi ñuy indil ay problème ñu ngi ñuy indil ay difficultés et puis sénégalais vraiment man bëggoon naa ñu gën a ñu gën a respecter seen bopp parce que boo duggee ci ci ci TikTok bi da dem ba da ngay dus Sénégalais yi ñu ciy def ak yi ñu ciy wax ak comportement yi ñu ciy am da xam ne que vraiment ñoom xëy na sax xamuñu li ñuy def mais bu ñu xalaatee ni ko yow tey lool loo ci réseau social bi tey ñu enregistré ko mu dugg ci fi cent ans buñ ko tàppee dafay gënaat tey boobu su fekkee da am tey jii quinze ans wala wala nga am vingt ans nga dugg ci réseau social bi nga def ci loo ci war warul def am ci comportement yoo ci warul am ëllëg nga am doom boo xam ni dans vingt ans dafay aspirer à avoir euh, des responsabilités au niveau du Sénégal ñu ngi xëy na war na mën a nekk imam parce que tey am na ay imam yu am vingt ans ci ce Sénégal mais ñu ne la yow a fa nekk imam nga ni lu tax ñu ne la parce que c'est ay bii génn lii la fa doon def génneel la ko wala nga bëgg a nekk président mais loolu day nekk gàllankoor ci yow loolu nag war nañ cee yee Sénégalais yëpp yëpp yëpp ba nga xam ni war nañoo def attention ci réseau social bi war nañoo def attention ci comportement yi ñu am ci réseaux sociaux yi euh, parce que li naan ëllëg du xaw ma lan wante mat na séddu loolu am importance loo xam ne man loolu mooy suma perspective personnel ba nga xam ni bëggoon naa ñun ñëpp ñu taxaw ci parce que li may wax nii man du du pour bande ñëpp la concerné aussi bien moi que yow que keneen ak keneen Sénégal tey jii dañoo war a euh, jéem a euh, seetaat jikko yi seetaat taxawaay ku nekk jël sa ay responsabilité euh, euh, parce que c'est pas parce que da ngay faral nit nit nit rek que boo ko tuddee ñu saaga la wala boo defee li ñu wax la nun lun la woon wax ku nekk débat bi ku nekk war nga mën wax li nga war a wax te doo saaga hmm. doo manqué nit de respect hmm. vraiment loolu daal xam je crois que foofu la ñu war a yee nit ñi ñu jëm ci côté boobu hmm. ñu gis ne aussi internet bi dafa cher euh, trop si côté opérateur yëpp euh, en tant que utilisateur euh, du net naka ngi gisee cherté boobu ak aussi lan moo si solution moi j'ai tarif moom tarifu internet ak yu nekk yi yeneen tarif yëpp dama leen mas a dama leen a dénoncé parce que dama mas a wax ni que Sénégal euh, euh, euh, pouvoir d'achat am permettre ko muy muy def yenn dépenses yi de façon constante téléphone ñëpp ko ñëpp lay jëriñ mais tarif yi dafa cher tous les réseaux seen ay tarif dafa cher loolu aussi war nañ ci mën a yee opérateurs yi ñu def ay efforts parce que man xam naa ni opérateurs yi ils gagnent beaucoup d'argent ci ci ci affaire bi euh, war na ñu mën a def ay efforts euh, c'est bien que ñu permettre leen ñu ñëw installer dans notre pays euh, mais ñu def ay investissements yi dana permettre pour que tarif wàññeeku parce que loolu man suma combat la mooy opérateurs yi ak les les grandes entreprises qui sont pour ñu mën a résorber la main d'œuvre la ou en tout cas ñi xale yi nga xam ne dañoo war a liggéey te amuñu liggéey te am ay diplôme jàng jàppale leen ñu mën a am ñu mën a am ñu mën a am euh, liggéey te loolu c'est possible parce que man euh, euh, souvent exemple yi may joxe rek mooy ñetti exemple yi mooy exemple Mbagnick Diop Mbagnick Diop ñëpp xam na ni que xëy na ëpp fi xaalis mais képp lay kàttanam ñu koy def pour créer entreprise di créer ay emploi ku mel ni Youssou Ndour ak loo ko mën a reproché tey jii tey jii au niveau du kenn ëpp ko mérite parce que ñëpp xam nañ ni que ñu fi créé ci ay emploi kenn xamul nu mu toll te leer na ma ni am na ñu ko ëpp moyen yu nekk Sénégal it am nañu ay moyen nekk Sénégal jël seen xaalis tànk yi muy nelaw ngir yàlla nañ ko gën ñu investir ko ci dëkk bi buñ ko investir coono yi nekk ci dëkk bi dana wàññeeku aujourd'hui tout le monde sait que la vie chère la ne vivent plus donc loolu war na mën a nekk combat boo xam ne ñëpp dañ ci war jàpp pour que mu nekk un combat unanime bu nga xam ne ñëpp daan ci daan ci gis seen bopp franchement état bi daal moo war a woo entreprise yi woo ñi nga xam ni am nañu ay richesse woo ñi nga xam ni am nañu de grandes entreprises au niveau du pays parce que nous allons vers le, le pétrole et le gaz mais avant ñu fay àgg war nañ nga effort yi nga xam ne war nañ ko mën dajale pour wàññi coono yi war nañ ko def parce que tey jii famille yi war nañ leen jàppale état bi war na def ay effort en direction des familles en direction même aujourd'hui de la jeunesse parce que jeunesse bi soo xoolee li ñuy def xëy suba am vingt ans duggu ci gaal dem duggu ci géej gi parce que li xaru la man pour man xaru la amul am amul beneen appellation bu ma ko mën a wooyee loolu nag désespoir rek la du leneen mais désespoir aussi warul mën a pousser xale yi ñuy def loolu mais état bi am na ci part de responsabilité ñi nga xam ne am nañu ay moyen piyee ko nanga woon ko investir au niveau du Sénégal je crois que ñooñu aussi am nañ ci une grande part de responsabilité. damay joxe toujours exemple. Mhm. président Houphouët-Boigny. Mhm. Houphouët-Boigny benn un dafa dajale ñi nga xam ni ñu ëpp xaalis ci Côte d'Ivoire mun leen yéen man seen xaalis fi ngeen ko denc yëpp xam naa ko li ma leen di ñaan mooy delloosi leen ko en Côte d'Ivoire ngeen investir ko fii pour mu mën a servir aux Ivoiriens dans les mêmes conditions ñi nga xam ne ils ont des centaines de milliards ñi nga xam dañ ko denc nëbbu ko wala ñu suul ko. nañ ko génn yàlla ñu investir ko ci dëkk bi nit ñi mën a liggéey coono yi mën a wàññeeku prix yi mën a wàññeeku parce que aujourd'hui soo gisee prix yi cher rek mooy que euh, les produits sont rares su produits rares rek te loolu rareté bi aussi responsabilité ñëpp la responsabilité état la responsabilité commerçant yi la parce que commerçant yi tey jii bu nee nii rek ñu jël seen affaire yi ñu bëgg prix yëpp yéeg te loolu aussi vraiment nit ñi mën ñu continuer di ko supporter loolu nag pour ñu bañ a ñu mën a loolu lépp il faut que ñu def une concertation nationale président woote woon na une concertation nationale mais nañu wootewaat bi yoon ñu ñi nga xam ne ñëpp dañ ci war a bokk ñu boole leen ci ku nekk joxe joxe soo avis su la question ba noppi bu buñ jëlee ay mesures nañ ko respecté parce que euh, euh, euh, euh, euh la conférence sur la vie chère la bi ñuy defoon mais jël nañ fa ay mesures mais ces mesures là ne sont pas appliquées aussi loolu il faut ñu wax ko waaw c'est bien de de réunir les gens ku nekk wax sa xalaat ba noppi ñu ay mesures mais mesures kenn du ko appliquer donc loolu aussi état bi moo ci war a jël ay responsabilités am waaw. voilà euh, Gaye rek dernière question c'est par rapport ak kuréel gi nga jiite aussi di Ligue sénégalaise contre le tabac euh, fan ngeen toll ci xeex wàllum tabagisme fii ci Sénégal ak aussi euh, chicha bi nga xam ne mi ngi def ay ravages. mais madame Moreau maa ngi lay maa ngi leen di ngi leen gërëm bu baax yéen. yéen seen groupe bi parce que yéen chaque fois dangeen di da ngeen da ngeen di pour di di di ñu li nga xam ni moom mooy doxal réew mi ñëpp xam nañ ni que tey Sénégal problème bi ñu gën a am mooy aussi euh, euh la consommation de tabac au Sénégal et la consommation de drogue et de l'alcool mais loolu ñëpp gis nañ ko Sénégal gis nañ fii sax ay ay ay dosettes de d'alcool yu ñu ko jaayee cent francs au niveau des écoles Il a fallu que les gens crient pour nous dire quelques la drogue en train de faire des ravages dans notre pays. mais le tabac dañoo am une loi boo xam ni depuis 2014 lañ ko voté mais c'est une bonne loi mais loi bi kenn appliqué wu ko tout simplement parce que ñi nga xam ni ñooy responsable ñi nga xam ñoo war a gérer la lutte anti-tabac au Sénégal defuñu li ñu war a def la lutte anti-tabac au Sénégal est très mal gérée la loi que nous avons votée est en souffrance la loi anti-tabac du loolu nag responsabilité état bi la responsabilité ministère de la santé la responsable bi tudd programme de lutte antidrogue bi nekk au niveau du ministère de la santé ba nga xam dañ ko installé ba noppi def ñu ko benn moyen euh, ñoom aussi seen seen responsabilité dafa engagé euh, tey jii li xew Sénégal c' est une la comment ces moyens là sont sont utilisés au niveau du Sénégal c' est deux ou trois personnes qui sont là qui se mettent dans un coin euh, qui font ce qu'ils veulent avec ces fonds là te au détriment de la lutte en tabac ñun nag loolu dootuñu ko nangu ñu ko accepter muy continuer léegi ñun en tout cas en tout cas moi en ce qui me concerne en tant que président de la de la lutte en tabac au Sénégal danaa jël suma ay responsabilité danaa danaa danaa saisir encore parce que j' ai j'ai déjà saisi le président j'ai déjà saisi madame le ministre de la santé et je vais saisir les partenaires parce que jël ay moyens di ko indi ci réew moo xam ni moyens yooyu kenn xamul fan lañ koy jaarale moi que loolu c' te loolu ñu ko fiy def ñëpp xam nañ leen c'est de c'est des groupes culturels ay ay prébendiers ay rentiers yoo xam ne ils ne sont là que pour capter des fonds ñoom ñoo nekk ci tey jii dans la lutte anti-tabac di ci def lu leen neex. merci beaucoup Amadou Moustapha Gueye euh, jël nañ sa temps bu bari ñu ngi lay remercier bu baax a baax. merci madame Moreau. voilà Amadou Moustapha Gueye may fàttali yaa jiite association des victimes du net nekk aussi président de la ligue sénégalaise contre le tabac.